fëgal la Siteu bu Ngor franchement mooy borom Ngor quoi mooy borom Aliou ku fi dàq bëre laa la laaj. moo de de kenn laa la laajagum kenn kan moo fi dàq bëre virage bu ma yàqal waaye booy jox ma benn réponse ñu avancé. Ah, kan moo fi dàq bëre. ñoom ñoo ko mën a ah, nga ma mën a tontu. a coow jibul coow mhm. boo leen taxawoon tey ñoom dañuy social ñoom ñoo ko mën a bëre. coow jibul maa laaj nga tontu on avance. yow euh, benn instant su ma la laajoon lamb ji wërngal këpp kan moo fi dàq bëre wërngal këpp. te yow bokkoo ci question bi. mbëru ngor no non lamb ji laa wax kan moo ci dàq bëri dafa am mbër bu tudd mbëru ngor yi. waaw dafa am benn mbër bu tudd mbëru ngor yi. mbëru ngor yi ëttu ngor nga man gëmuma beneen mbër mais man li ma la laajagum mooy lamb ji kan moo fi dàq bëri jox ma benn mbër ne ma kii moo fi dàq bëri. moom boo yéegee ah. na wax quoi. jox ma kenn waaw VIP kan moo ci dàq bëri. ñun ñoo moo ci dàq bëri. ñun ñoo VIP. waaw bii nekk ma booy nag booy bu ma jaxase waaye nag booy nag dañu war avancer ci beneen question waaye làmb ji wërngal këpp kan moo ci dàq bëri jox ma kenn ñu avancé ñun waa Ngor yow nga ma mën a tontu ñun ñoo dàq bëri ñun ñooy dem làmb xam nga sànq lu rafet set wécc xam nga bëri jaamu xeeñ lu neex d'accord léegi limal ma juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji juróomi mbër si tëbu Ngor juróomi yi dàq bëri ci làmb ji laax de lemal baaraam gaaw si tëbu Ngor si tëbu Ngor waaw ah. toujours pare toujours prêt xeeru Ngor xeeru Ngor fëgg la fëgg la benn melo benn melo ñi ñoo dàq bëri ci làmb ji waaw toujours prêt tout euh, euh, euh, cité bu Ngor toujours près benn melo xeeru Ngor ak ak fëgala ak toujours près ñi ñoo dàq bëri ci laamu ji non may ma may ma may ma may ma may ma yow dama la laaj laamu ji ñen ñoo fi dàq bëri nga jël lépp delloo ko Ngor ñoo fi nekk barki Serigne Sarr ñoo fi dàq bëri ñoo fi dàq xeex ah waa Ngor ñoo fi dàq bëri laamu ji wërngal këpp fépp d'accord maa laaj nga tontu booy laaj naa la tontu nga ma sama laaj clair na sa réponse claire na on avance benn instant su ma la laajoon bëri fit entrainement nga ban mo ci ëpp solo ban nga may ton pour man ci fit man nga am doole bu bari te amo fit man nak yalla dama ma may loolu parce que dama dama dama dama dama tomber sa gaay nan undu mhm. undu sa signifie ko xamni ni tawul yole ni quoi mhm. la tolon tolloon moment boo xam ne nii lu yëngu sax naan booy undu la quoi mhm. ak sëriñ sa d' ba ci mo dimbalé nak bama ma ba ci dal ñent yi ban mo ci ëpp solo bëree fit entraînement galaaj ban mo ci ëpp solo fit fit mo ci ëpp solo fit kon yow sëriñ bi defaralee. Mhm. amoo boo mhm. ba mel ni yenn grand yi du génn. kon boo gisee mbër bu am fit da nga koy naw. waaw mooy booy bi jàkkaarloo ak man. kan Siteu. ah d' accord je suis am na fit lool lool lool lëj na aussi lëj na lool na xëree bëre loolu mën naa ko séddee. macha allah man ah, d' accord lañ koy ñaanal ñun waa Ngor mhm. ko topp ñu koy jox conseil mu bañ a fàtte ay booy mi ñu àndal te bu mu moom sa yooyu nekk si moom. mi ngi ci yoonam. Ah. kon daal fit moo jëm solo. mooy sunu mooy sunu yaakaar quoi franchement. d' accord sunu yaakaar la quoi. mais ñeent yi ma la limal fit Il y solo. fit peu de yow nga y a bëri ji un jour ñu wala téléphone ne la allo booy virage dafa am règlement bu bees bu wàcc mhm. yow sa bëre sa fit sa entraînement ak sa gàllaaj ñu la ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmb ja benn bi da koy bàyyi wala doo bëre. ban ngay bàyyi damay yóbbu fit entraînement. ban ngay bàyyi bëre bi fit bi entraînement bi gàllaaj. fit entraînement dama koy yóbbu. ak ban ak bëre bi. nga bàyyi gàllaaj gàllaaj sama yaay bu toogee kër gi téye kurus gi mën nañu gàllaaj ngay bàyyi waaye nga yóbbu bëre fit entraînement waaw sama yaay wi kër ga téye kurus d' accord euh, lu tax mënoo bàyyi bëre bi dëgg mukk si boo actionné wul doo daan lu tax mënoo bàyyi entraînement bi doole mooy bëre bi lu tax mënoo bàyyi fit bi fit boo amul fit doo taxaw ak moroomu góor bay actionné maa laaj nga tontu sama question leer na sa réponse leer na euh, booy virage bi nga dalee seetaan lamb ba tey ji may wax ak yow ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog seen bi seetaan ko mu marqué la ba mën a ko fàtte. man bu ma ah. bi la gën a marqué ci làmb ban combat la. su ma la waxee dëgg. Mhm. combat bi ma gën a marqué boo bëri boo seetaan boo seetaan stade wala wala wala ci télé bi. Euh, ah. mu met mu man waaw mais bi la gën a marqué. bi ma gën xam ne mënoo ko fàtte. boo xam ne mënuma ko fàtte. entre Balla Gaye Yékini. Balla Gaye day Yékini 2012 ba. bi Balla Gaye couronne bi. Serigne Saliou Balla Gaye lu mu lu mu ma def loo ci làmb Balla Gaye xott na sama jasneer Balla Gaye yàq na sama yére taabal de bi ma nekkee ndeysaan ma demee vacances saa toom mhm. tombé muy bëri Modou Lo bu njëkk la. sama sama grand bi maa ngi koy nuyu pour bégal ko gars yi parce que boobu da nga kontaan. ba tey jii nag moom léegi nii nag ndeysaan dama ko bëgg waa ce qui veut dire que daal bala Gaye day Yékini mooy combat bi la gën a marqué ci làmb yow bi nga dalee bëree ba tey mbapat ba arène ban victoire moo la gën a neex ci sa carrière.

muy kan. boo Diouf Boy mooy sa dernier combat bi. boobu moo la gën a moo la gën a métti ci sa carrière. combat yi nga jot a bëree yëpp. boobu la ci gën a metti ma génn tuuti ci làmb ji dugg ci sa vie privée da ngay seetaan football. football benn joueur laa am maa ngi ñëwagum ci joueur bi ñëwaguma ci est-ce que da ngay seetaan football. waaw damay seetaan football football ban équipe mooy sa équipe. équipe bu Ngor. équipe bu bu Ngor mooy sa équipe. mën nga ma limal cinq joueurs équipe bu Ngor. cinq joueurs waaw. Ah. Ah. waaw. ñëwal. jëlal Sidi Bouye. Sidi Bouye. international. international waaw Diké. ñoom ñëwal la wax. waaw Sidi Bouye Diké ak kan. Serigne Saliou. Serigne Saliou. waaw moom mu euh, ngi la ñuy joué. Ah, ñoom ngay supporté. kan mooy sa joueur préféré. Ronaldo Chris. Cristiano Ronaldo moi ce joueur. D'accord, accord maa laaj nga tontu mbër Sénégal kan mooy sa way kat ku way nga contane. Hein? Balago. Balago Thione Balago bi Seck Wali Seck wala Thione Seck. Wali. Wali Balago Seck. waaw en faramaren nga. mu ne Wally D'accord, wali accord Wally sa way kat. Euh kan mooy sa comédien préféré. comédien préféré Mahfouz. Mahfouz man. Mahfouz fait la vidéo mm-hmm. moom mooy sa moom mooy sa comédien préféré. a vaccin yi quoi. mënoo koo muñ. non man dama abonné si moom. d' accord euh, benn instant mm-hmm. bu ma fa jógee dama naan kan mooy euh, lan mooy sa coob sa plat préféré. sama coob. Mm-hmm. man dama bëgg ay ñànk tak na xam xam nga loolu quoi dama bëgg yooyu noonu mu bañ a ay jën xam mooy sa plat loo am daal mën na ko gënal ci coob. mooy mooy sa coob. D'accord. Euh, série sénégalaise bi ban série mooy sa série préférée. xam nga man ben. waaw Golden Golden. Golden. Golden. Golden. Golden. Golden. Golden. Golden. Golden. Golden. ah ñëwal jox ma Golden, Golden, golden golden. golden golden na ko euh, Jamil Fadel Dem. Kan euh, Fadel. Dem parole de Fadel Dem. dafa am arñu quoi dafa dafa ñàng waa dafa noonu la fa demee moom mooy sa acteur ci film bi d' accord on avance euh, mbër yaa ngi ngor ah question bi ma lay ngor bokku fan moo la gën a neex ci Sénégal ban koñ ban quartier ban gox fan moo la gën a neex ci Sénégal. ma gën a neex Sénégal daal Sénégal partout. Sénégal wërngal képp fan moo la ci gën a neex. il y a Touba. Touba Touba Mbacké. Talibé Bamba. nous sommes des moo la gën a neex Sénégal. waaw euh, question suivante bi dama naan Sénégal bokku ci ah ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi boo xam ne da ngay rêver un teg fa sa tànk. oh my god. yow god oh my god what does it mean. États-Unis d'Amérique. ah unis d'Amérique. barke Serigne Touba ci kaana yi. dem di ko représenter. dama ne la hmm. ah, yow kaana yow real. I'm a real Hey, what's man. up? What's <laughs> is Boy Viraj. Boy Viraj. And you? Me, my my name is Seydna Ghetto Boy. Seydna Ghetto Boy. Mm Kana baa ngi nii de mi ngi ñëw sal seen kaw. benn instant. raka ji. instant bi may wax nga liggéey tekki dal ci alal ju bari lan nga ci njëkk a def. ma tekki dal ci alal ju bari. Hmm. comme ni ma la waxoon sànq rek social bi quoi. su ñëw boo meer bi maaka xam nga dugal nga kër gu dal jaamu hmm. pas ngandi kër yoo xam ne gars yi dañ koy gis di ah, hmm. kër gu simple rek ak social bi quoi parce que ñun bëgguñu comme dab rek bëgguñu dund loo xam ne gars yi ñu nekk loon dunduñu ko. d' accord euh, benn instant nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jëlee ko fi loo fi jëlee. lu ma tere ñu jëlee fekk am na looy gis mi loo xam ne neexu la te mënoo ci dara. lesbienne góor jigéen. lesbienne góor jigéen. LGBT góor jigéen nga fiy jëlee.